asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum waa adduna maa ngi leen di ziar baax di leen bëggee yéen ñëpp xam ngeen ko dootuma leen ko présenté c'est Ziza et ses vidéos am na ñu naan Ziza le villageois am na ñu naan Ziza sa boss en tant que humoriste xam nga rek day bëri ay tour nekk benn booy di xam nga mooy loolu daal waaw bëri ay caprice quoi waaw maa ngi ziar bu baax baax nag di jégalu bu baax di leen baalu ak ci weeru koor bi ne baalu ñëpp ak képp ku ñu seetaan rek ñu ngi lay baalu ak di ñëw fekk la fi nga toog di la jox suñu ñaari loxo di wax jégalu baal ñu ak ndax ak dafa sew émission bi ne li ko waral mooy incha allah rabi samedi le huit samedi bii di ñëw nii yaakaar naa soriwul damay def ay doole ndaw fële sama village fa nga xam te ne fa laa juddoo fa waaw foofu noonu incha allah rabi fa laa bëgg a sama carrière fa laa bëgg a débuter li nga xamante ne si moom laa bëgg a woo nit ñi muy lan muy ay doole ndogu laa fa bëgg a def sama buntu kër day am bëgg naa ne ñëpp ñëw na si ñëpp jàpp gis na def na benn affiche boo xam ne def nañ ci numéro numéro boobu noonu képp ku si bëgg a jàpp rek incha allah rek boo wootee ci numéro si jàpp ndaw yi nag xam nga invité na ñëpp di invité ñëpp di sant sama gars yi fii waa yaraax man bu ma mën a mel wax ni daal li gën a waral émission bi li ko gën a waral mooy ndaw yi ma war sant incha allah si woo ñëpp nag na si ñëpp jàpp kër see gépp tund jëndeer génn ñëw jàpp maa ngi si soxla site internet yëpp na ñëpp ñëw incha allah rabbi à partir de 17 heures lay ñëpp ñëw di lancé benn appel nag man ku ne man taalibe Cheikh la man taalibe la sëñ Abdou Aziz Al Amin la ma maa ngi ci lancé benn appel bu baax a baax a baax mu ne incha allah rabi jumaay Tiwaawan ji li si des bëreetul ku si mën a jàpp képp ku si mën a jàpp numéro yi mu ngi noonu ñu affiché suuf ngir yàlla wa rasulullah wéef orange mën a yëpp envoyé ko ndax foofu ah loo fa def sa bopp nga ko defal de waaw innal masaajida lillahi falaa tad'u ma'allaahi ahadaa kon yaakaar naa taxawal jumaa moom taxawal nga lu rëy kon di ci ci wax ñëpp di ci woo ñëpp incha allah rabi na si ñëpp dugal seen loxo jumaa jooju pare ndax ñun amuñu lu Tiwaawan ñun Tiwaawan lañ ñun mbubboo Tiwaawan leen am di nag bu baax a baax a baax wax ñu lu ci dëng rek ñu xam ne suñu ñàkk bañ a wax suñu ñàkk mën a wax la rek mais si jub nag ñu xam ne ah yàlla subhanahu wa taala moo ko dogale woon gaay abonné leen nag si chaîne bi